jërëjëf mbokk internet yi gannaaw nag ni lañ leen ko waxee ñu ngi file ci Pikine ak ridis gannaaw ñaawteef bi nga xam ne daal dinañ koy def ci jumaa ji ñu ngi toog nag kilifa dañu koy nuyu rek waaye ñu bàyyi ko mu expliquer ñu exactement mbir mi naka la demee papa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Abdoulaye Thiam. Abdoulaye lan nga ci Pikine fii ci jumaa ji nga xamante ni moom la ñu ñëw. waaw ci mag yi jumaa ji ci laa bokk fii laa dëkk chef de quartier bi man maay adjoint. waaw d'accord gannaaw ba nga xamante ni dégg nañ information ko rek dafa am jëfkatu ñaawteef yoo xam ne dañ fi ñëw sàcc bagage u jumaa ji lan nga ñu ci mën a jox ci ay leeral ci information boobu. waaw liñ ci do leen ci mën a jox di leeral daal. bii bii mooy ñaari yoon. bii mooy ñaari yoonam mu di ko fi def. waaw du euh, bu njëkk ba yàgg na. bii barki démb amul ñetti fan. amagul amul sax ñetti fan biñ ko fi defee. léegi bi ñëwee bi ñëwee ci suba euh, bi ñëwee ci bi ñëwee ci ci ngoon gi bëgg a ubbi jàkka ji ñu ñëw fekk ñu dindi ventilateur yi onze ventilateur lañ fi jël waaw onze waaw te defa ñëw xam naa ñun ci sunu xalaat ñun morgue bi bu ñu jullee gee ba pare dañ koy tëj morgue baa ngi ne ci ginnaaw waaw bu ñu bu ñu paree dañ koy tëj bi ñu ko tëjee nag xam naa dañ ko tëj ci biir parce que bunt bi nga xam ne mooy. buntu yaakaar ne da ngeen a tëjaale ki sàcc kii. tëjaale waaw dañ koo yaakaar mais gisuñu ko wóorul yaakaar dañ cee am yaakaar léegi bi ñu ñëwee nag ñu xool bi ñu xoolee bunt bi ñu xoolee bunt euh, imam bi fi muy duggee foofu la dajji xam nga bunt baa nga ca morgue ba foofu la dajji. pour ñun dafa fanaan yor ay matériel am dajji bunt bi yàq ko léegi dugg ci biir am na ay verre ak yu bari sax da koo toj fi eh, fi ilimaan bi toog noonu léegi bi mu def ah, waaw waaw yi yow yàq ba am na yom fa yàq waaw léegi bi mu defee noonu nag ah léegi gaa ñi jóg daal di wax même police woo nañ leen ba ñu constaté ko bi ñu defee noonu nag ñu xool ndekki fukki ventilateur ak benn moo dem waaw ñu xool buntu bi nga xam ne mooy morgue bi kenn dajjiwu ko mais buntu ba eh, kii limaan bi di duggee moom la dajji dugg ci biir jumaa ji waaw ñu mu jaaxal ñu nag ñun nag dañoo am yaakaar ci ne dañ koo tëjoon ci biir waaw waaw am yaakaar rek tëj ko ci biir mais wóoruñu ne dañ koo tëj ci biir kenn xoolul deful dara loolu la kon walla waaw ñëw rek daal di tëj ra dem ñibbi ba suba xam naa ak bi lii nag kii bi mu koy def ay booru trois heures di matin lay doon waaw trois heures du matin trois heures et la ko mën a def parce que ñun ñun ñuy dëkk fii ci koñ bi di mag mag ci koñ bi ñun fii la ñuy toog fii ci ci jàkka ji la ñuy toog ba minuit minuit fa la ñuy fekk minuit minuit fii la ñuy fekk ñun ba une ñuy waxtaan suñu waxtaanee ba heure yooyu ñu dem ñibbi ku nekk dem ñibbi fi nga dëkk waaw parce que ñun fi ñu dëkk soriwul fii man fi ma dëkk soriwul kii fii la dëkk moom ñeneen ñi ñu ngi dëkk fii ci kër gi ñun ñoo fay toog di waxtaan waaw ak borom dibiteri bi waaw ñu ñoo fiy toog léegi nag bi ñu bi ñu bi defee noonu nag ñu daal di koy annoncé nit ñi ñëw nit ñu baax ñi ñëw am na nit ñu baax ñu ñëw jox ñu euh, ñu jox ñu ventilateur ñi jox ñu xaalis ñu dem jëndiwaat ventilateur yëpp complété ko fi mu ne nii yëpp complété na benn manqué tu waaw. ñoom daal sàcc yi bi ñu ñëwee ventilo yi kese la ñu wekki yóbbu ko wala am na leneen loo xamante ne yóbbu. rek lañ fa yóbbu yóbbu ñu fi leneen waaw buñ fa yóbbu woon leneen nit ñu wax ko mais loolu lañ yóbbu waaw ventilateur yi daal lañu fa yéeg dindi yëpp onze yóbbu comme ça beneen bu njëkk bi waa ji bi mu ñëwee. bi ñu ko njëkk a sàccaat ci jumaa ji. njëkk a sàccee bi mu ñëwee dafa lal euh, sëru wasiba bi bi ñuy wasifaa la jël waaw moom la lal ëmb ventilateur yee dem te bëccëg la de bëccëg. bëccëg la ñëw daaju jumaa ji. ay deux heures bu ñu jullee deux heures ba non du ko daa fekk nit ñi di xaar ay néew fii ñu ubbi jàkka ji dañ ko ubbi biñ ko ubbee nit ñaa ngi toog ci bunt bi sax moom mu ñëw jaldi di muur yëpp daal di yóbbu. xanaa boobu yéen ñi nga xam ne walla sax ñi nga xam ne ñoo fi toogoon di xaar néew yi gisuñu ko woon wala. gisuñu ah gis nañ ko waaye xamuñu ci dara ñooñu ay jàmbar lañu bokkuñu bokkuñu ci jàkka ji. ay jàmbur lañu dañoo xaar néew rek pour ñoom xëy na da koy yóbbu nettoyé kook yooyu voilà looloo tax waxuñu ca lii la nii la demee bu njëkk ba bii nii la demee xam naa ay trois heures et demi trois heures la ko la ko war la ko war a dajji jël ventilateur yi yóbbu waaw te xam naa ne nag du kenn du ñaar xam naa ñu bari lañ te dama ragal ne oto lañ gaare waaw parce que buntu. bu ñu ñëwee ventilo yi la ñuy wékk rek yóbbu. waaw les ventilateurs yi daal la ñuy yóbbu. yóbbuwuñ fi leneen waaw yóbbuwuñu rajo bi parce que rajo baa ngi ñu ngi ciy nodd ko wax waaw léegi nag bi ma kiyee léegi nag bi bi ñu ñëwee ba xool ba ubbi jàkka ji xool xam ne dañ koo dajji bunt bii buntu morgue bi ci la ci la ko peese xam naa da koo peese rek mais dajjiwu ko foo ko peese fa la ñu jaar ak si foofu lañ jaar ak ventilateur yi te xam naa dañoo gaare oto waaw waaw yëpp ko ci dem ak moom waaw léegi mbir yi xanaa amul suite ki nga xamante ni moom moo ko jëkkoon a def ndax jàpp nañ ko wala ba léegi déggu leen ci ay info ñu ci dara ko ko njëkkoon def ba léegi dañuy toog di déglu rek mais xamaguñ ci dara mais bii moom woo nañ police ba ñu constaté ko ba pare waaw léegi nag ñu ngi toog di déglu ba xam lu ñu def xam na ndax dina feeñ wala du feeñ yooyu daal ñu ngi ko wéer nañ ko ci yàlla daal ñu ngi wéer mbir yëpp ci yàlla ñu daal saa yu amee mbir yi ci yàlla lañ koy wéer jàkka ji kër yi ko wër xanaa amul caméra de surveillance ngir ngeen mën a xool ndax ay nit yu bëri la wala kenn nit la woon. loolu moom amu fi waaw mais bu soobee yàlla bëgg nañ ko bëgg nañ ko see def am ah, waaw parce que jàkka ji ngay gis nii ñun ñii mag ñii ah ñoo ko liggéey dërëmu dërëmu état demu ci waaw suñuy dërëm ñaar dërëm suñuy 1000 francs suñuy 10 000 ñoo ko doon cotiser ba defar jàkka ji nii mu nekk ñaari étage mais dërëmu gouvernement mosu cee dem. waaw loolu ma ma leeralal leen ko ba ngeen xam ko ba nit ñi xam ko waaw ba tey ñu nit ñu ngi fi lañ daan def ñu ngi koy def ba tey bàyyiwuñ ci dara dara bàyyiwuñ waaw waaw ñun dama ñun dañoo yaakaar ne xëy na fi la dëkk mën na fee dëkk nag te xamuñu ko waaw loolu daal am nañ ci yaakaar ne mën na fee dëkk te duñ ko xam waaw lii la waaw naka nga ko jàngatee comme nit ñi léegi bàyyi nañu di tafuwaate ci mbedd mi bàyyi nañu agression mais li ñuy def mooy dugg ci jàkka yi ak morgo yi di sàcc bagage yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk aussi. bon rek bon nit ku bon mooy def yii mais nit ku baax du ko def ku ku xalaat dara xalaat ne yow jullit nga bëgg nga dara am nga njaboot doo def lii waaw kii lii ki ko def ñu bon lañu. waaw loolu daal ñun lañ ko njàggatee ñun. waaw ventilo yi nga xamante ne sàcc nañ ko gars yi jàppaat nañ ci ba ñëpp sottiwaat. ñëpp sotti na waaw ñëpp jullit yi jàpp nañ ci ba lépp mot waaw fi mu ne nii ventilateur yëpp mat na bu ëppul koy manqué wul waaw. mu ngi fi waaw jaajëf man ah xanaa di leen sant rek di leen gërëm comme ni ngeen def nii déplacé wu dérangé wu ñëw ba fii di ñu laaj. di ñu ci jàppale bëgguñu ko tasaareel ah xanaa di leen sant di leen gërëm rek. yal na leen yàlla may wér a gudd fan amin amin jërëjëf